man maa représenté tey ñëw too Jobaas bi ñu rafetlu vraiment le ministre def ci wàllu masque yi nga xamante ni di koo jël coronavirus bi nga xamante ni mu am ci Sénégal gi yépp fii di goxam muy Jobaas mu dimbali leen lu toll ci huit mille masques yoo xam ne Jobaas ñi waa tayari Jobaas ñoo ko ñaw. amoon amuñu woon benn liggéey parce que xam nañu fi mbir mi toll nii liggéey day jafe parce que nit ki day tal loo xamante ne da koy lekk mais. du kii loo xamante ni peut-être day ñawloog yooyu moo tax man ñawluñu woon mais daa xool loolu xam ni loolu vraiment bu leen bàyyee seetaan leen noonu rek du doon loo xam ne rafet la ba tax na léegi masque yi nga xamante ni moom la waroon a indi jabaas dane du ma ko yóbbu ci beneen dëkk wala di ko commandé feneen te tayari jabaas yi nekk fi war koo mën a liggéey moo tax mu jël masque yi maanaam jox ñu ko ñun tayari jabaas yi te am nañ benn association boo xamante ni ñoom la ko jox jabaas bi yëpp yëpp wax dëgg yàlla moom barkeelu nañ ci jabaas gi yëpp ba fii ba commune Tassette ci la ñu bokk rafetlu nañ ko loolu kontaan nañ ci vraiment acte bi mu def parce que maire yëpp bu ñu ni mom vraiment développement dina am content nañ trop trop trop trop ci bi ñu def ñu koy ñaanal mom ay avancement yu bare bare bare bare te mbass mi fi nek ñi ñaan suñu borom mu jóge fi ñi ngi ñaan bu baax baax suñu borom mu jëlee ko fi ba ku nek dem ci activité am xam nañ activité yëpp téye ko kon ñu ngi ñaan suñu borom mom mi ko fi indi mu génné ko fi ñepp sant alhamdullilah rabbi am delu wat seen liggéey